kon mbokk yi alhamdulilah ñi ngi bëgg a jël suratul xajj ci aaye bu njëkk bi insha allah ñi ngi wane ne sunu borom subhanahu wa taala moom mooy dogal lu ko neex dafa fekk ne dañuy nekk ay contact ak mbokk yi nekk ci internet beeg yooyu donte ne ni ñàkk courant wurul tee ñu waxtaan am na benn benn mbokk bu ñuy wax Adama Gueye ku xam Bamba ñaan seen dëkkandoo la daana ñëw fii ci jàkka ji mi ngi dëkke golf daf doon waxtaan ba mujj ci waxtaan bi am na benn dof mi ngi toog nële ñu dem ba yàgg courant bi coupé ñu arrêté waxtaan bi dof bi daal di jóg ñëw na ko yow tax nga bàyyi sa waxtaan bi mu ne ko ah courant bi moo coupé mu ne ko bu doon courant islam dana yëgsi ci yow waaw yeneen bi ba muy wax ban courant moo ko doon jottali ah ndeysaan sunu mbokk bi wax bi dafa ko touché ba conférence bi da koo arrêté keneen a ko yeggale ndax wax di ko dof bi wax rek moo xam ne dof bi yàllaa ko yónni waaw kon it ñun wax dëgg yàlla bu doon jàkk ji rek lañ moo moo ñu taxoon a jóg kon it daan kii waaye mbokk yi dañuy bëgg léeg-léeg di enregistré rek ak yu demee noonu kon incha allah ñu jël aaya bi jëkk ci suratul xaj ji
الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرم سبحانه وتعالى مني يا أيها الناس أي النني اتقوا ربكم ragal leen seen boroom inna zalzalata saa la nga xam ne mooy rëngi-rëngi bi su penc day shay'un azim mbir la bu màgg yawma tarawnaha bis ba ngeen di gis loolu nga xam ne mooy yëngu-yëngi bi su penc tazhalu kullu murdiatin amma ardaat dana sàggane bépp aji nampal ca lam doon nampal wa tad'u kullu zaati xamlin xamlaha dana wasin bépp aji ëmb la nga xam ne mooy ëmbam ba wa tara naasa sukaara da nga gis ni ñépp ñu mel ni ñu màndi wa ma hum bi sukaara doonte ne màndi wuñu walakin azaab allahi shadid waaye mbëgalu yàlla rek mooy la tar wa min annaasi man yujaadilu fi llah da nga fekk ci nit ñi ñuy dàgg sant ci yàlla bi xayri ilmin bi xayri ilm ci lu àndul ak benn xam-xam wa yattabiu kulla cheytaanin marid waaye topp bépp cheytaane bu féttéerlu bañal boromam subhanahu wa taala kutiba alayhi annahu man tawallaahu cheytaane moomu bind nañ ci moom ay dogal nañ ci moom ne képp ku ko féetewoo fa annahu yudilluhu ku mel noonu day seytaane dina ko réeral wa yahdihi ila azabi sair yóbbu ko ci mbugal mu ñuy tuddee mbugalum sair mbokk li mooy suratul xajj di saar boo xam ni dañ ne wàcce na ca makka wàcce wàcce makka ca madina jamono bu yeneen bi alayhi salaam di tukki ak jamono bi mu nekkee ci kër mi ngi wàccoon njëlbeen gi di bopp bi keroog bi yeneen bi jógee xasootu tabuk di génn xeexi àndoon ak jullit ñu bare bare bari bi ñëwee ba ci yoon bi la sunu borom wàcce aaye bi la wàccee boppi aaye bi borom bi lan la ci wax mooy eey yéen nit ñi ñun ñépp ñu war koo déglu eey yéen nit ñi ñun ñépp ñu war koo déglu donte ne arab léeg-léeg it annoos daana ci jublu nit ak jinn yépp mooy li am xel eey yéen nit ñi ragal leen seen boroom nu ñuy ragale sunu boroom subhanahu wa taala mbokk ragal yàlla moom mooy nga jàng ba xam li yàlla bëgg jàng ba xam li yàlla bañ nga daal di cay taxaw sa kémtaleel kàttan bañ koo bokkaale def ay ndigalam bàyyi ay tereem lii moom mooy at taqwa ragal leen yàlla ca xam ne yéen ñépp da ngeen di daje bisu penc te bisu penc day mbiram lu rëy la mbiram lu rëy la yëngu-yëngu ya fay nar a am dana jommal ñépp ña fa daje sunu borom mu ne ca beneen saar ida zulzilat al ardu zilzaalaha wa axrajat al ardu asqaalaha wa qaala al insaanu maa laha da ngay gis ne keroog suuf bii ñu toog dana yëngatu tasaaroo doomu aadama yépp yéemu malu xew tey malu dikkal suuf sunu borom mu ne keroog lay nettali bépp xabaar bu ñu wàcce woon ci moom mbir ma du yem ci suuf montagne yi dañuy exploser biddiw yi tasaaroo asamaan xotteeku malaaka yi wàcc événement yooyu nga xam ne mooy am na doon fa mu commencé di tabbi fi àdduna di jeexe ba sunu borom di tasaare li mu bindoon ba bàyyi yàlla di dekkalaat nit ñi bis penc lii lépp la ñuy wax yëngu-yëngu yooyu nar a am ca bis penc borom bi nee na bépp jigéen bu mu fekkoon ngay nampal bu dee bis penc ngi tàbbi da nga sànni la nga doon nampal ngir tiit da nga gis ne képp koo xam ne daa ëmboon nit la jaan la lu mën a doon da nga tiit ba avorté keroog sunu borom mu ne da ngay gis doomu aadama yi mandi fu ñu jot dóor seen bopp fu ñu jot dugg fa et pourtant day mandi wuñu waaye mbugalu yàlla moo nekk loo xam ne nii lu tar la mbokk aaya yi bi nga xam ne nii wàcc na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote sahaaba yépp ñëw mu jàng ko seen kaw sahabatul kiram maadaama suñ borom dafa leen wërsëgal loon ay xol yuy dund xamuñu woon luy télévision xamuñu woon luy journaux seen mbedd yi melul woon na suñuy mbedd loole ñoom ñépp dañoo ànd di jooy radiyallahu anhum yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam xamal leen ni ñàngaay boobu ak daw googu nit ñi mel ne mandi mooy keroog bi yàlla di woo aadama alayhi salaam ne ko aadama génneel ciru sawara ci sa xeet bi ci sa doom yi aadama ne sama borom ñaata laay génne mu ne ko na nga génne junni bu nekk juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent sawara lañ jëm loolee mbokk jooy la woon sahaaba yi doonte ne yonent bi alayhi salaam bégal na leen ne leen xam leen ni sama xeet yi nga xam ne gëm nañu ma buñ koy méngale ci li nga xamee ne mooy njabootuk aadama dafa mel ni rek benn tupp bu weex ci nag woo xam ne daal ñuul kukk daa di ne man day ragal naa ne sama xeet mooy nekk kaaru waa aljanna sahaaba yépp kabar mu ne ragal naa sax sama xeet mooy nekk ceeru ak aljanna saxaaba yi kabbar mu ne ragal naa ne sama xeet sax ñooy nekk genn wàllu aljanna ay ñi nga xam ne ñoo gëm yonent bi ca topp ko yal na yàlla boole ñu ci ñoom mbokk mi ngi noonu loolu moo tax ba niñ koy waxe daiman boo nekkee dëkk bu mel ne Sénégal da nga bëgg yàlla day mën na am da nga yaakaar yàlla xemmem ay mbiram mën na am amaa ragal yàlla moom doo ko am ndax aljanna yombal nañ ko bisu penc ci réglé nañ ko àjjanay gàcce rek la ñuy bañ mais lépp def nañ ko mbokk loolu uti na ak njàngaleem islaam na doon alquran la na doon sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la sunu borom nag ba mu woon nit ñi ci ragal yàlla nee ne teewul am na ci nit ñi ñuy nekk di dagg sante ci yàlla mooy nit ñu baax ñi bu ñu woote ci tawxiid woote na yàlla rek a yàlla yàlla rek a mën yàlla rek ko sañ moom rek kay def muy jëndi keneen ñëw ne déedéet diwit kay moom mën na nangam diwit kay day xettilaate diwit kay day nangam di dàgg sant yàlla kan la topp mooy cheytaane ma nga xam ne dafa fétéerlu kullu cheytaan mbokk cheytaane day am ci nit ñi am ci nit ñi day am ci nit ñi am ci jinne yi moom la borom bi di wax shayatin al ins wal jinn yuuxi baaduhum ila baadin zuxrufa alqawli gurura am na cheytaane ci nit ñi ak ca jinn ya yoo xam ne ku nekk day wax sa moroom wax yoo xam ne waxi wooraate la loolu tax ba am na doomu aadama yi ñoo xam ne jinne moo leen nax directement dévier leen waaye am na ñoo xam ne seen moroomu nit buy aña ceebu jën di naan lëwal ak deuxième moo leen nax ba dévier leen ci yoonu yàlla mbokk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bépp seytaane bu fetteerlu nga xam ne sunu borom nee na ku ko féetewoo dana ko réeral yóbbu ko ci azabu sair ca mbokk mi ngi noonu moo di ne képp koo xam ne yaa ngi woo nit ñi ca na bàyyi leen julli bàyyi leen woor xam leen na sant moo gën a for loolu lépp xam leen ne yaakaar suñ diw moo gën a màgg loolu lépp képp koo xam ne wuy si na la ci loolu day xamal ne yaa ngi koy diri jëme ko te la ñuy tëdd sair di benn bunt ci juróom-ñaari bunt sawara yi yal na yàlla musal ñu ci léppi sawara
أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
سنبرم سبحانه وتعالى مني يا أيها الناس أي نتني إن كنتم في ريب من البعث سديد نك ci sikk sàkk ci ak dekki fa inna xalaqnaakum min turaab ñun dey ñoo leen bind ci suuf summa min nutfa gannaaw ba ci toqmaniyu summa min alaqa gannaaw ba ci liy wékku ci seen biiru yaay summa min mudra gannaaw ba ci lumb yàpp benn sàqami yàpp lu mel ne lu ñu sàqami muxallaqa boo xam ne dañ ko bind mu nekk nit wa gayri muxallaqa ak loo xam ne kenn du ko bind dañ koy avorté mu génn li nubayina lakum li lépp def nañ ko ngir leeral leen wa nuqirru fi l arxaami ma nacha ñoo ngi saxal ci la nga xamee ni nii mooy biir yi lañu ca soob ila ajalin musamma ba baa dig boo xam ne tudd nañ ko ba pare summa nuxrijukum tifla gannaaw ba ñu génn leen ngeen nekk ay liir summa li tablughu ashuddakum gannaaw ba ngeen jot seen am kattan wa minkum man yatawaffa am na ci ñoo xam ne dañ leen faat avant ñu am kattan wa minkum man yuraddu ila arzalil umur am na ñu ñuy delloo ba ca gën jaa suufe ci dund li kay laa ya'lama min ba'di ilmin shay'a ba nga xamee ne nii ngir mu bañ a xamee ci gannaaw ba mu xamee mu bañ a xama ci dara wa tara al arda haamida da ngay gis suuf day ma nga doon lu wow fa ida anzalna alayha al ma su dee wàcce nañ ci kaw suuf see see am ndox ihtazat mu daal di yëngu wa rabat mu daal di funki wambatat min kulli zawjin bahir saxal ci bépp peer ci gàncax goo xam ne gu taaru la mbokk sunu boroom mi ngi eyeen nit ñi weddi dekki am na ci xam ngeen jamono yonent bi ba tey sun jamono ñi ñuy dundal ci kaw suuf la ëpp ci doomu aadama yi dañoo weddi ne dee dekki am na nit bu dee jeex na lu tax mooy seen xel munta nangu nit ki day dee doon poussière tasaaro yaxi tasaaro ba pare ñu naan day dekkiwaat wala ñoo xam ne incha allah wala ñoo xam ni gaynde moo leen rey lekk leen loolu lépp kon ñu ne li nga xam ne mooy ak dee dékki nan la mën a nekk di amate sunu borom yàlla nag ngir wan ñu ne mën naa dekkal ña dee woon sunu boroom ngir xamal ñu ne moom am na kattan ci dekkal ñu mu ne yéen doomu aadama yi su dee da ngeen di dee du dellu ci suuf xam leen na man ci suuf laa leen binde woon ca mooy avant doomu aadama di fippu ci boroomam mboolem diine yi aadama mooy seen bàyyi aadama yàllaan ko bind ci suuf gannaaw ba génn ci moom soxnaam sa hawa daa di commencé nag génn ca góor ña nekk ca bani aadam ak jigéen ña nekk ca bani aadam la nga xamee ni nii mooy ndox mu ñuy tuddee nutfa di la nga xamee ne ci la doomu aadama di cosaanoo nutfa boobee sunu borom yàlla subhanahu wa taala dana ko fa bàyyi lu jege ñeen fukki fan gannaaw ba mu def ko li nga xam ne mooy alaqa mufassiruuna yu jëkk yépp dañ ko doon firi lumbu deret doonte ne ne bari na lenn ci ñi nga xam ne dañoo géeju ci science ñu ne alaqa ni ko yàlla tuddee loolu rekk la mooy dafa mel ni luy accroché wu mooy luy wékku ca la nga xam ne moom mooy rox mu ndaw si loolu la fay nuroolu boo jëloon am na yoo xam ne dañ koy tudde ay kuttu day nekk ci xar yi ñu koy sempi nga xam ne da ciy tafu di naan deretam alaqa boobu it noonu lay def ca la nga xam ne nii mooy biiru ndaw sa ko yàlla tëral pour mor fa màggee gannaaw ba suñu borom dana ko soppi def ko mudura mudura mooy benn yàpp bu ndaw ba mel ne bu ñu sàq mi tey biñ demee ba laboratoire yi gaa yi génne ko da ngay gis lu mel ne ay bëñu nit ñoo ko saqani bal boo jëloon tey lu mel ni benn plagu chingom nga sàqami ko nga matt koog say bañ génne ko moog doomu aadama ni muy commencé ci biiru yaayam benn lay doon place ba ñi ci nekk mooy nekk ca fële mu doxa léegi nag su dee jaar na ci étape boobu sunu borom yàlla mën na koo continuer mu dem ba yàlla def ci ruux def ci ay yax wadd ko génn ko muy liir moom la borom bi tudde mu xallaqa am na nag yoo xam ni sunu borom nee na moom dañ koy avorté ci na am mbokk at mu un million de personnes juddoo xamal ne au moins plus de deux cent nangam ci mille ci ay avortement am na dañu naan jigéen ñu bëri dañ avorté ci yëguñu sax dañu avorté moo di ne ne seen cycle fi ñu war a gis règle dañ ko passé ba jël ëmb gannaaw ba ñu gis deret fekk ne loolu avortement la loolu lépp ci yàlla ni muy natte ay jaamam la doomu aadama buy demee ci sëy da ngay gis ne mën na génne lu jege juróom benn fukki million ci ay spermatozoïdes yu mën a nekk doom sunu borom yàlla ci kattanam moo ne nuqirru fil arhami ma nasha ñun ñooy saxal ca biiru biiru jigéen ya lu ñu ca soob nga gis koo xam ni benn lay ëmb gis koo xam ni ñaar lay ëmb bal amoon na ci Arabie saoudite at yi passé ku amoon juróom ñaari doom yépp dund amoon na ci Amérique ku amoon juróom ñetti doom la ëmb wasin ko loolu bi iznillah la loolu war dana la yéen moo ne ñombar yi de dañuy ëmb fukki doom ak ñaar génne ko janax ju ndaw ji nga xam ne mën nga koo lump suñu borom lay def mu jur juróom benn doom kon nuqiru fil arham ma nasha ñuy saxal ci biiru jigéen yi lañu ci soob gannaaw ba sunu borom génnee doomu aadama ñu nekk ay liir loolu su ko neexee gannaaw juróom benn weer la mooy ajalul musamma bi mu wax na am nit dana am ci biiru yaayam juróom benn weer génn nekk nit dund ngi noonu su yey sa juróom benn weer moom du dund mi ngi noonu su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel léeg-léeg la gën a bari mooy juróom-ñeenti weer donte ne ne doomu aadama dana am ay at ci biiru yaayam no am am na benn boroom xam-xam bu ñuy tuddee imam Dahaak ñuy jàng xam nañ ko bi muy judd mi ngi indaale ba ñoom yépp a mat gis ngeen ba ñoom yépp a mat imaamu Malik rahimahullah nee na am naa ay dëkkandoo am am na ñetti doom ay soxna si ëmb na ñetti ëmb ëmb bu ne ñeenti at def na ko ci biiram loolu mbokk kawtiifu yàlla la donte ne boo demee ci ñi gëm tubaab nii rek dañuy jàpp ne xëy na loolu mënta nekk kaza waaye mbokk inna allah ala kulli shay'in qadir ñeenti wee ñeenti at ëmb na ko kon nuqiru fil arham ma nasha summa nuxrijukum tifla gannaaw ba ñu génn leen muy liir loolu di kawtiif heure boo demee ci tudd ñu génn liir bi di ko tudd war ngaa fàttaliku man di lii mas naa ci jaar gannaaw ba sunu borom dina màggal ba nga jot sa digg doole léegi nag yow mi sikk sàkk dee dekki xoolal différence u toquma nii yow bi nga xam ni fu mu la laal nga dem raxasu ji six mois après sunu borom def ko doomu aadama génne ko gars yi kooku amul kàttan ci la nekkoon ci suuf mu génne ko tontu la may ax kay ñaareel ba xoolal liir bi buñ ko foto woon teg ñu bàyyi tey ba mu nekk di ub làmb ñu daal di koy génnewaat nekk liir bi moo nekk ni di ub làmb ji tey gaa yi loolu yéemewu la yàlla même kattan jële ko fi yóbbu ko fee ndax amul kattan génne ko ci suuf aha kay suñu borom yàlla mu ne nag am na ci ñoo xam ne bala ñoo yegg ci étape boobu faatu ndax lan mooy mbir bi ab dig la amul lenn ci àdduna lu la mën a garantir dund gaa yi liiri Amérique yi du ñu dee ah kay jeunes yi Amérique yi du ñu dee ah kay te fële médecine fekk baax fa alal alal fekk baax waaye suñu borom mbir bi ab dig la am na ci yéen ñoo xam ne du ñu dee yàlla da leen fii bàyyi ñuy màgget di màgget ba xubbi daas dem a dem ba dootuñu xam dara loolu mbokk da ngay gis ñun wolof yi dañ koy ñaanalante yàlla na nga dund bañ lay weere ki wéri waaye mbokk loolu yonent bi da ko doon muslu da doon wax allahumma inni auzu bika an uradda ila arzalil umur yàlla yàlla bu mu yóbbu ba mu xubidaas dema dema dem ba xamatoo dara dema dema dem ba amatoo benn njëriñ ci société bi julit daa war a ñaan yàlla balaa yegg foofu dem wuy ji boroomam subhanahu wa taala ndax que lu yàgg-yàgg da ngay dee rek mi ngi noonu kon loolu sunu borom yàlla mooy ki nga xamee ni moo koy def muy preuve bu leen di leeral ci ne yàlla subhanahu wa taala day ku mën a dekkal ñi deewoon la ay benn pepp mboq génn juróom-ñaari téeméeri mboq wala benn pepp dugub mën na génn sax juróom-ñaari junni dugub wañe ne yàlla jalla wa ala mi am kattan ci def lii yàlla moomu am na kattan ci dekkal ñi nga xame ni nii dañoo deewoon mi ngi noonu subhanahu wa taala
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
سنبرم سبحانه وتعالى منكن سنبرم سبحانه وتعالى مني ذلك بأن الله li waral lii mooy yàlla day huwa alxaq moom rek mooy dëgg wa annahu yuxyi almawta ca moom day mooy dekkal ñi nga xam ne dañoo deewoon wa annahu ala kulli cheyin qadir ca mooy ki am kàttan ci lu mën a doon wa anna saata aatiya ca yit bisu penc luy ñëw la laa rayba fiiha benn sikk nekkul ci loolu wa anna allaha yabaasu man fi lqubuur ca it yàlla day mooy dekkal ña nekkoon ci biir bàmmeel ya wa min annaasi man yujaadilu fi llah am na ci nit ñi ñuy dàggasante ci yàlla bi gayri ilmin wala huda ci lu tegawul lu àndul ak benn xam-xam àndul ak benn njub wala kitaabi muniir àndul ak benn téere boo xam ne bu leer la ثاني عطفه ما غي لم بغمبا ليضل عن سبيل الله غيري دي سانكاتي تي يونو يالا له في الدنيا خزي دانا كو نيال تي ادونا جي تروختانغي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق مصل كو يوم القيامة مبغل مو خنا مكاي لكلا ذلك بما قدمت يداك لي داي موي لاغا خامني جيتال نكو ساي لوخو wa anna allaha laysa bi zallamin lil abid te borom yàlla day nekkul kuy tooñ ay jaamam wa min annaasi man yacbudu allaha ala xarf am na ci nit ñi koy jaamu yàlla ca ak wet rek fa in asaabahu xayr su dee laal na ko aw yiw ca jaamu yàlla ga itma anna bi mu dal ca jaamu yàlla googee wa in asaabathu fitna waaye bu ko dalee fitna day inqalaba ala wajhi mu daal di dëpp ca kanamam nga xasira dunya wal axira ay waay ki moo perte àdduna ak alaxira zalika huwa alxusraan almubin lii rek de mooy pertaange boo xam ne bu leer la mbokk sunu boroom won nañu fi muy jaar ak ñun ci sunu biiru yaay muy képp kenn ci ñun war na fàttaliku loolu man kat mas naa jaar ci tuxumaniyu ci mudduxa mas naa jaar sama borom yombal ma génne ma ci àdduna mu lay won na borom boobu moom dong mooy dëgg moo tax sunu borom ni zalika bi anna allah huwa alxaq nga xam ni kii rek laa war a jaamu kii rek laa war a yaakaar ci kii rek laa war a sukkandiku wallahi boo naan cheikh diw mi ma yaakaar sëñ diw mi ma yaakaar ndax keroog bi ngay nekkee baynal mudxa wala alaqa sëñ diw moo ñëwoon jàppale yàlla ci loolu ndax keroog bi nga matee war a génn sëñ diw moo ñëw génne la si biiru yaay la wallahi kon zalika bi anna allahu huwa alxaq yàlla rek mooy buuru dëgg yàlla rek mooy buuru dëgg bi nga xamee ne nii dañu ko war a yaakaar wala sukkandiku ci moom waaye it ñu gëm ne yàlla nii mooy dekkal ña dee woon ndax moo am kàttan ci bépp mbir na am mbokk julit inna allah ala kulli shay'in qadir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu gi mas nañu nettali benn góor goo xam ni gu sàgganoon la sàggan lool waaye nag gëmul na yàlla quand même sàgganoon na nag bi muy déemu woo njaboot gi ban bàyyi laa nekkoon ci yéen ñu ne ko ngeen jee bàyyi amul lu nekk lu dul taxawal nga ñu ci mu ne waaye nag maa ngi leen di seedeel ne seen bàyyi tund wi ku ko ci gën a saay parti benn bi ngeen dem sànni ko géej benn bi ngeen sànni ko ci àll ba yàlla de boo amee kàttan ba dekkal ma dana mu mbugal mbugal bu mu dul mbugal kenn bim dee doom yi defal ko loolu yeneen bi alayhi salaam mu ne sunu borom ne ko kun sëñ caam mu daal di taxaw nekk sëñ caam mu ne ko waaw lu la xiir ci lii nga def mu ne ko ragal sa mbugal rek borom bi mu ne ko demal baal naa la gis ngeen wa liman xaafa maqaama rabbihi jannataan ragal na yàlla doonte ne am na erreur chaque ci ni su nekkoon dóom yàlla du ko dekkal waaye gëm na àllaaxira am na gëm na ne yàlla day dekkal ca it ragal na mbugalum yàlla yàlla na ko baal naa la loolu it mu lay jàngal ne mbokk inna allaha ala kulli shay'in qadir ak noo mën a dee ak noo mën a tasaare sa borom dana dekkal waaye ngeen gëm ni it bi sa penc mi ngi ñëw sikk amu ci ñi nekkoon ci biir bàmmee gi yépp yàlla dana leen génne sunu baay aadama ak ku mës a juddoo ruux na doon kookee yaayam da koo avorté woon waaye bi ko yaayam di avorté amoon na ñeenti weer yu topp bañ wal cag ruux ñoom ñëpp suñ borom yàlla dana leen dekkal yowmal qiyaama lii doon privilège waaye teewul suñu borom mu ni ba tey am na ci nit ñi ñuy dàgg seenti mbiru yàlla teguñu ko ci xam-xam teguñu ko ci royukaay bu baax muy hudan yoon wu jub bu ñu topp teguñu ko ci téere bu leer mooy athée pur et dur yi nga xam ne weddi nañ yàlla weddi yowmal qiyaama ban preuve lañ ci am amuñu ci benn preuve lu waral loolu mooy nan la ñuy gëmee dund gi am na te mënuñoo gëm dekki am na pour ñoom ñu ne loolu c'est pas possible ndax nit ki day bu dee day dellu ci néant mooy dellu ci poussière dellu ci ñàkk am waaye la nga xamee rek loolu la ñu waxoon yàggul dara la philosophe ba tontu woon moroom ma bam ne ko allaaxira amul mu ne ko waaw nuñ def ba àdduna am mu ne ko àdduna par hasard la am mu ne ko est-ce que àllaaxira mun tam par hasard waa ji jàtt loos yi xamul lu mu koy tont loolu mbokk mi ngi noonu su ko defee kon dañuy gis ni ñu bari ñu ngi dàgg sant yàlla teguñu ko fenn soo leen waaye ci yàlla ñu lem seen mbagg yi rëyu rëylu dem di sànq nit ñi ci yoonu yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ni ko mel nii danaa ko toroxal àdduna dina am amul kenn koy féttërlu woo nit ñi di leen réeral ci yoonu yàlla lu dul yàlla dana ko toroxal ci kat ci bëtu nit ñi baax ñi loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ca loolu teewul bu tuubul ca toroxtaange boobee sunu borom dana ko mus mosal mbugal mu koy lakk yowmal qiyaama loolu mi ngi noonu toroxtaange ga mën na doon lu nit ñi gis mën na doon jamono bi muy sukuraat comme li borom bi subhanahu wa taala di wax ah walaw tara idi zalimuna fi ghamarati almawt walmalaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum alyawma tujzawna azab alhun mi ngi noonu sunu borom nee na malaaka yi bu ñu jël si saay saay di ko dóor di ko duma naan ko tey rek lañ lay toroxal gis ngeen loolee day am ci àdduna bi muy sukuraat ci bi mu nekkee bàmmeel yowmal qiyaama la ñu doog koo gàddu tabbal biir sawara ne ko lii day mooy la say loxo liggéeyoon xamal ne sunu borom yàlla di tooñ benn jaam naam amul kenn ko yàlla yi mbugal lu dul ne leeral na la yoonu njub nga lànk rëy rëylu fittirlu ñaar yi wa min annaas yi nga noonu ñu jàng ko ñetteelu wa min annaas bi sunu borom ñu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jaamu yàlla waaye nag jaamu yàlla ala xarf mooy dañuy seet rek arab yi dañ daan def da ngay gis dëkku arab bu masaan ñëw dugg ci diine ji jébbalu dugg ci lislaam at boobu bu dee ne mbay mi dafa normal jur gi bari ñu ne ah diine ji kat diine ju baax la daa di ne sax ci continuer jaamu yàlla mais buñ duggee ci lislaam at boobu ñu maral amuñu ak jur am ay tolof tolof ñu ne hee diine ji diine gaaf la daa di génn ci diine ji suñu borom mën a xoolal xasira dunia wal axira àdduna baaxul yàq nañ alaxira mi ngi noonu sama benn waay mi ngi may nettali benn naar bu fekkoon benn lafañ mi ngi jënd bitéelu sàngaram di naan mu ne ko hey yaa axi àdduna yàqu na bul yàq alaxira am déet mi ngi noonu comme àdduna yàqu na bul yàq alaxira xasira dunia wal axira mag ñi dañ naan mooy perte ñaare mooy ndóol lu topp lu yàlla ndóol lu topp lu yàlla ala kulli xaal mbokk jullit nañu xam ne alhamdulilah li ëpp ci jullit yàlla sutural na leen waaye boo xool àdduna yéefiri raw nañu raw goo xam ne pour ñu dab leen dana jafe lool pour ñu dab leen dana jafe lool yow ndawal jullit xoolal li ngi sitaan ci télévision bi xoolal yéefiri ci seen bateau à voile yi seen milliards yi seen hôtel yi seen loolu da ngay gis ne yow boo doon liggéey fi ba kañ nga leen dab mënoo leen a dab fexeel raw leen alaxira fexeel raw leen alaxira fexeel ba bul saggan ba ñu raw la adduna raw la alaxira ñu ngi noonu bokk julit bul bokk ñi nga xam ne xasiru dunia wal axira borom bi subhanahu wa taala nag ne lii de mooy pertange ba nga xam ne moo gën a màgg ci pertange ñu ngi noonu
yad'u min duni llahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ
sun boroom subhanahu wa taala mu ne waa jooju day wala gaa yooyu yadu ma ngay woo min dunillahi gannaaw yàlla maa la yadurruhu wa maa la yanfa'u loo xam ne du ko lor ce du ko jëriñ dalika huwa dalaalu albaid lii de mooy réer gu sori yad'u laman darruhu aqrabu min nafi ma ngi woo koo xam ne lorom moo gën a jege njëriñam la bisa almawla wala bisa alashir aka bon aji féete jooju aka bon aji wittal jooju ay aji àndandoo jooju inna allaha yudxilu alladina amanu wa amilu alsalihat sa borom yàlla nag mooy tàbbal ña gëm ay jëf-jëf yu yiw ya jannaat tajri min tahtiha al anhaar àjjana yoo xam ne dana daw ci suufam ay dex inna allaha yafaalu ma yurid yàlla moom mooy def lu mu soob man kaana yazunnu an lan yansurahu allahu fi dunya wal axira képp ko jort nag ni yàlla du dimbali yonentam bi ci àdduna ak alaxira falyamdud bi sababin ila sama na tàllal ci benn mooy jëme asamaan te loolu mi ngi ci jublu sabab mooy buum ila sama mi ngi ci jublu la nga xam ne mooy toitiru néegam di puju néegam arab lépp loo xam ne daf ko féete kaw sama la koy tuddee buum it mooy sabab balay jokkale summa yaqta gannaaw bu mu dog ay na pendre boppam fal yanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghidh na xool ndax dana yóbbu pexem ba la nga xam ne mooy la ka naqari merloo ko mbokk suñu borom mu ni doomu aadama yi bokkaale seen boroom dañuy woo loo xam ni amalu leen njëriñ amalu leen lor mbokk jullit aka bari ñoo xam ni dañuy jaamu ay jinne ci jinne yooyu amaluñu leen benn njëriñ sunu borom mu ne lii day mooy réer gu màgg ban la gën a yéem borom bi mu ne seen lor moo gën a jege seen njëriñ da ngay gis tey masalan dëkk bi ñu nekk muy ndakaaru da ngay xool ñu ci bari seen xërëm yi ñu yor di jaamu lëg daawur mbay waa Kaolack ak maam Mboose Thiès ak Kumba Bang ak bayaalu Kumba Badiane ak waa Ndar ak Kumba Bang kaza wa kaza fu ne am nañ fay jënne yoo xamee ni nii am na ci ñoo xam ni ndaw si bu ëmbee fokk mu dem tuuru yàpp ngénte bi fokk ñëw ba ci xërëm ya balaa boot fokk mu dem ci xërëm ya ay coono yoo xam ne liñ ciy daj ci seen ndëpp ya lor ba ñuy jële ca bokkaale yooyu kenn xamul nu mu toll amaa njëriñ ñoom ñoo ko def seen xel rek waaye wallahi mënu leen jëriñ leneen abadan amul kenn kuy jëriñ ku dul borom bi subhanahu wa taala moo tax ku la gën a ñeme xërëm ku la gën a ñeme xàmb moo la ëpp ay dof gaa yi dëgg la am du dëgg hakay dam leen seen kër yi ay dofi neen kon da ngay gis ne loram moo ëpp la nga xam ne mooy njëriñam su ko defee borom bi mu ne ak bon jëlee koy féetewoo waaye ak bon jëlee koy àndandool mi ngi noonu su ko defee yow ndawal jullit fexeel fippu ci loolu doy lool sa borom subhanahu wa taala wékkul ci yàlla subhanahu wa taala loolee da ngay gis ne mooy jubluwaay bu gën a màgg ak loola ca mën a fekkee ngalawaay na la ko jaral am na ci ñoo xam ni dañu naan la boo bàyyee suñu xërëm yi dañu lay kortu nga dee waaye mbokk nañ la kortu nga dee fekk yaa ngi dee yàlla diine yàlla ji ndax doomu aadama am na lu gën a màgg ci suuf ba muy dee diine yàlla ji moo tax mu dee moo ko loolu mooy ash-shahaada loolee bu mu la tiitloo dugg ci lislaam donte ne jot na ay xabaar ci ñoo xam ne loolu moo leen tiitloo bañ a dugg ci lislaam ñu ngi noonu am na benn jigéen bu ñëw ci man ne benn waay bu muy bëgganteel mais yaayam moo ne ko kaarama bis boo tuubee ma rey la ñu noonu lu tax ndax gis nañu ñenn ci ñoom ñoo xam ne bañ tuubee dañu yóbbu seen xamb yi ñu ñul rey leen wala defloo leen wala kaza wa kaza waaye loolu lépp it da ngay gis ne ñaari biir moo ca nar a am gënal ne mënuñu laa lor illa bi iznillah illa bi iznillah loolu nag tekkiwul ne mënuñu laa lor wala ñu bàyyi ci xel bu baax moo ko njabar day loraate suñu borom nag dane wa ma hum bi daarina bihi min ahadin illa bi iznillah duñ lor illa bi iznillah kon yow doo leen ragal yàlla ngay ragal mboolem bois sacré yi nekk Sénégal mboolem jabar yi nekk Sénégal mankañ la ñoom jaago la ñoom wala fulam séeréer lu ma la doon suñ daje woon bëgg a lor benn jaamu yàlla mënuñu ko lor illa bi iznillah amma bu dee dogal na nga tub dugg ci lislaam ñu njabar la njabar ga jàpp la loole itamit da ngay gis ne wallahi boo dee yàlla subhanahu wa taala boo la la ci ñu shahid seen mbokk saani bi ñëwee fi tafsir bi ñu may nettali benn jeune bi jëkk ñëw seen dëkk di woote sunna paa yi dañ koo menacé boo ko bàyyi suñ xamb yi ngay tudd bàyyi suñ garab yi ngay tudd soo ko deful dana daañ la rey faalewu leen mu continuer di woote mais bis lañ ko def benn affaire boo xam ne dafa yëg luy bëx-bëxi ci biiram luy dund ci biiram bis la dem ba dem lu mel ni luy bëgg a génn mu dugal loxoom jàpp lu mel ne benn tànk xëcc am lu dagg keroog la dee yal na yàlla tàbbal ko aljanna waaye mbokk jar na ko sahabatul kiram ana ñaata ñoo ci dee ci toolu jihaad ngir kàddu yàlla jëm kaw kon booy dundal kàddu yàlla ba ne rey la ci loolu ndax nit am na déggu gën a rafet googu abadan ala kulli xaal sama borom nee na du ñu leen jëriñ xanaa lu dul dañ leen di lor amma ñi nga xamee ne nag gëm nañu ñoom tey def jëf joo xam ne jëf ju baax la sunu borom mi ngi leen di waajal àjjana joo xam ni dana daw ci suufam ay dex la borom bi yàlla nag nee na man may def li ma bëgg inna allaha yafalu ma yurid loolu it mbokk mu lay jàngal ci ni àjjana des koy sabablu waaye di ko ñaan yàlla am déet wax yàlla kat nee na la ko neex doo ngay am yafalu ma yurid te laa yusalu ama yafal kenn du ko laaj lu tax nga def nangam yafalu ma yurid borom boobu nag wëlbatikoo ci sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ko jàpp ni duma ko dimbali àdduna ak àllaaxira ñu ne ha mu ne deel gis ngeen bu la naqaree deel wala fee koy wax te mooy kon pendral sa bopp te doomu aadama su demee ba jaaxle ci àdduna nekk problème boo xam ne amuñu ko solution dernière solution mooy na xaru jeex na dernière solution mooy na xaru allahuma loolu nag yéeféeru koy def mbokk julit dara du ko tax a xaru du problème mu àdduna du feebar du toroxtaange du tiitaange amul lenn luy tax julit a xaru mi ngi noonu amul it looloo tax it am na tey débat bu am fële ca Occident ñi mooy nit ki su demee ba cliniquement mort ñu xam ne kii c'est fini kenn mënutu ko dekkal ndax am nañ droit jekki li ko am déet donte dafa nekkee débat ci ñoom ñooy nit yi diine ci ñoom sax nangu woon quand même bu ñu nekkoon diine l'islam dañu xam ne l'islam moom du ci d'accord abadan doomu aadama phase bu mu mën a toll ci feebar du tax mukk ñu ñu ñu ñu yeggale ko naka noonu it du tax mukk nga xaru abadan loolu muy mbir bi amma yéefér bu ku jàpp ne du ma dimbali yonent bi deel yàlla dana ko dimbali lu tax mooy keroog ba ndimbalu yàlla ñëwee yéefér yi xam nañ ne yàlla dimbali na ko te mooy iza jaa nasrullahi wal fath keroog ba yàlla indee ndimbalam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog lu ëbbi màkka mboole mi xërëm ya fa nekkoon mu màbb ko mboole mi xërëm yañ doon daamu ci région ba mu màbb ko comme la nga xamee ni nii noonu la mbokk yee nekk Mali di def di daj yi place yi ñu jàpp ne place su ay place su xërëm la donte ni heure bu ñu koy waxee dañ leen waxee ne dina la ñoo d'accord ñoom à cent pour cent lu waral loolu mooy mbokk mbiru def lu baax dana baax waaye nag lu nekk daa am waxtu wu mu jotee lu baax daa am fu mu baaxee ñu bàyyi ci xel bu baax daa am waxtu wu mu baaxee amit nu mu baaxee yooyee boo ko jalgatee rek da ngay gis ne da nga def erreur di mbir moo xam ne nii nag ña koy xam mooy boroomi xam-xam ñoom ñooy yegg ci loolu loola tax tey jii benn waay bu ñëwoon ne ma waaw xërëm yi tabax yi ñu tabax yoof loolu bidaa la dafa xaraam dañ naan ko naam mu gàddu marto ne maa ngi koy tëju loo koy wax naan ko suñu bul dem am déet nga naan ko bul dem loo tax mooy fitna ba nga fa nar a jur moo ëpp boobu loolee kon loolu la amaan bu ñu amoon nguur goo xam ne not na dëkk bi am na kàttan am na kóolute ci ne sax na su boobaa lépp luy shirk ak bidaa da ko fa war a génne waaye amaa bu dee ñoo xam ne seen tànk dëgëragul lu mel ne lay xew Mali nga xam ne yéen a ngi nekk di flotter ñu ngi naan ñu ngi former force africaine pour daaneel leen Occident ngi taxaw yooyu yëpp jarul ngay attaquer say mbokk jullit di leen offenser di dal loo xam ne nii léegi da ngay am ñaari front front jullit ñi ak front ña nga xam ne mooy Occident mi ngi noonu yal na yàlla jubal ñu jubal leen ala kulli xaal sunu borom yàlla kon dige woon ne dana dimbali ab yonentam te it mujj na koo dimbali ci àdduna ni mu ko dimbalee àdduna it noonu la koy dimbalee àllaaxira bi iznillah
كذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين أشركوا إن إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
سن بروم سبحانه وتعالى مني وكذلك أنزلناه نيدي لنك واتشي آيات بينات منك آية يوخمني يلير نانيلا وأن الله يهدي من يريد سبرم يالنك موجبل كم بقى inna allazina amanu wa amilu salihat inna allazina amanu ña nga xam ne dañoo gëm muy julit ña walazina haadu ak ña nga xam ne mooy yahud ya gëmoon muusa wa saabiin am na ñu koy fire ñu doon jaamu biddiw yi doonte ne am nañu ne mooy niti tawxiid yu tënkuwul woon ci benn diine wa nasaara ak ña nga xamee ne nii mooy ña tappoon isa bna maryam wal majuus ak ña nga xam ne ñoo doon jaamu sawara wala zina ashraku ak ñi nga xam ne dañu doon bokkaale seen borom ci mushrikun arabia inna allaha yafsilu baynahum yawm alqiyama sa borom yàlla muy teqalee seen diggante bisu pénc ba inna allaha ala kulli cheyin shahid ndax sa borom yàlla bépp mbir mooy ka koy seede alam tara anna allaha yasjudu lahu ma ndax gisoo ne sa borom yàlla dana ko sujuutal man fi samawati wa man fi l ard mboolem ñi dund ci asamaan ya ak ñi dund ci suuf wa shamsu wal qamaru dana ko sujuutal jant ba ak weer ba wan nujuumu moo ne biddiw yi it ñu ngi koy sujuutal wal jibaalu montagne yi ñu ngi koy sujuutal wa shajaru garab ya it ñu ngi koy sujuutal wa dawaabu mboolem luy dox ak tànk mi ngi koy sujuutal wa kathiirun min annaas ak la nga xamee ni nii lu bari la ci nit ña wa kasirun xaqa alayhim alazab wa kasirun xaqa alayhi alazab doonte nañu bari yey na ci moom mbugal wa man yu wa man yuhini llah koo xam ne yàlla ko toroxal fa ma lahu min mukrim amul ku koy mën a tëralati inna allaha yafalu ma yasha sa borom yàlla mooy def lu mu soob li ngi noonu mbokk sunu borom nee na alquran ngi nii moo ko wàcce muy ay aaya yu leer aaya yi lan lay jëriñ ndax jàngal ko sunu bàyyi yi dee woon ndax bind koy saafara di ko diwoo ko naan ndax di ko wàccee suñuy kër mbokk jubluwaay yi ba taxoon yàlla wàcce alquran mooy aw yoon la bu leer nañ boo xam ne sunu borom dana ca jubale ku mu soob ci ay jaamam mbokk yàllaa ngi noonu muy jubal ku ko soob looloo tax mu sànq jabari nuux jabari luut jubal jabaru kàccoor ba firawna noonu it la réerale ka nga xam ne moom mooy doomi nuux ja réeral lu bari ci doomu aadama yi waaye jubal lu bari ca la nga xam ne ni moom mooy doomi yéefir yu bon ya abu jahal mi yeneen bi doon tuddee firawna xeet bi doomam ja ikrama ci lislaam la deeye da nga gis yonente bi alei salatu wasalaam bi mu wootee bàyyam yi sësoon ci moom dañ ko weddi abi taalib weddi abi lahab weddi ni ngi noonu donte na bàyyi jàmbur yi am nañu bëri ñu tub dugg ci lislaam ala kulli xaal sunu borom mooy jubal ku mu sob borom bi nag ne adduna day yoon yi teqalikoo na am na ñu ma gëm gëm yonent yàlla bi muy lazina amanu yàlla na yàlla boole ñu ca heure bu yàlla wootee yaa ayuha allazina amanu xamal na ñooñu la ci jublu jublu ci chrétiens yi jublu ci yahud ya yaa ayuha allazina amanu foo ko fekk ci alquran mooy amanu bi ma unzila ala muhammad mooy ñu gëm lañu wàcc ci yonente bi yàlla dana dajale kon julit ñeeg ñay woote na yahud lañoo nasaraan yaag majus yaag sabiina yaag yépp daa di atte seen diggante yowmal qiyaama seen borom yàlla mu ne man maa seede lépp looloo tax isa ibnu maryam keroog ba ko yàlla woowee na ko waaw isa yow day chrétiens yi ñëwoon sa gannaaw yépp dañ la doon jaamu yaag sa yaay ndax yaa ko digle woon ndax yaa waxoon nit ñi ittaxizuni wa ummiya ilahayni min dunillah isa daa tiit ne ko subhaanallah sell ñeel na la may wax lu lu lu dul sama àq man de doon naa leen seede ba may dund ba nga ma fa jëlee yaa leen doon seede wa anta ala kulli shay'in shahid yow rek yaa seede lépp kon inna allah ala kulli shay'in shahid loolu tax mbokk yàlla rek a mën a atte ñu ngi noonu yàlla rek a mën a atte benn waaye ngi ñu tëj ko jàpp ko criminel la lu tax mooy biñ ñëwee fi ñu rey nit moom la fa fekk ñu jugé ko tëj ko fekk deful dara benn waaye ngi nii nga xam ne nii moom jàpp na mooy accusateur bi fekk na moo def njombe wi gaa yi ndax gisu leen suratul baqara li tax ñu tudd ko suratul baqara waay benn jeune bu saay-saay moo rey magu baayam yenn ko yóbbu quartier boo xam ne dañoo noonu woon noonu woon ak ñun xaaju guddi sànni ko fa xëy suba rek waaw sama baay sama baay ba fekk ko ci quartier ba rek mu dem gàddu jaasi ak yi àndoom na ah yéen rey sunu baay dañuy reyanteeg yéen mbokk lépp lu dul nit ak jinne day sujuutal borom bi subhanahu wa taala sunu borom nee na jant bi mi ngi sujuut weer yi mi ngi sujuut biddiw yeeg montagne yeeg garab yi ñu ngi sujuut moo ngi day fas yeeg mbaam yeeg picc yeeg jaan yeeg lépp mi ngi sujuut sujuut loolu nekk na nangul borom bi toroxlul borom bi tey da ngay gis ne la nga xam ci sujuut yow mooy yonent bi alayhi salaam ni mu ko jàngalee nga jël sa juróom-ñaari cër teg ci suuf mooy jël sa jë ca bakkan ci jël a bokk kuy sujjuut teg sa jë te tegoo sa bakkan su sujjuut manqué na yonent bi alayhi salaam ba mu naan ba muy jàngale sujjuut dana juróom-ñaari cër la ba ca jëkk mooy jë mu teg ci bakkanam ba ca jëkk mi ngi nii jë teg ci léegi waa ji bu dee daa feebar masalan waa ji bu nekkoon biir avion masalan buy julli di sujjóot ndax loolu lépp dana ko ci fekk déedéet loolu lépp du ko ci fekk boobaa boppam rek lay sëgal loolu it mu lay won ne sunu borom ñu ne jant baa ngi sujjóot garab yaa ngi sujjóot montagne yaa ngi sujjóot ñi ngi sujjóot loo xam ne comprendre na ko nu ñu koy defee comme ñi ngi sàbbaal loo xam ne comprendre nu ñu koy defee lii mooy la nga xam ne moom la julit war a gëm suñu borom mi nee na la bari ci nit ñoom it ñi ngi sujjuut lu bari ci nit ñi ngi sujjuut alhamdulillah yal na yàlla boole ñu ci ñuy sujjuut borom boobu subhanahu wa taala mu ne am na ñu bari ci ñoom ñoo xam ne mbugal yee ci ñoom gaa yi ñaari groupe la da yàlla wax de ñii sujjuut ak ñi ñuy mbugal ku bokkul ci ñuy sujjuut foo bokk te ña ñuy mbugal rek ñu ngi noonu te ñi ñuy mbugal rek ñu ngi noonu wallahi aka metti aka tiisu nga gis ay mbooloo yoo xam ne dañu leen a xañ julli xañ leen woor ci dig leen aljanna aka metti aka neexoon mu ba ñu na am suñu réew na am dann ay naar yoo xam ne suñu morgue morgue bi bi muy doog a pare ñoo fi jëkk dëkk di fi fanaan di poore gi jóge woon Niger dafa may nettali mu ne dafa am benn tariqa bu nekk foofu ñoom dañ leen di tuddee alquraaniyuun ni ñuy jaamu yàlla mooy alquran xamuñu nee nañu reconnaître ñu sunna alquran rek la ñuy jaamu yàlla léegi nag ñoom dañuy julli julli gi benn rakka lay doon li yàlla wax rek la ñuy wax la ñuy def ci alquran qumu lillah irka'u usjudu dañuy taxaw bu ñuy julli jàng alxuraan rukkoo benn rukkoo sujud benn sujud julli ga jeex na bi ma ko waxee daf ma frappé yéem ma lool gannaaw ba sama xel na yar moo ne am na ñuñ tane de ndax ñoom ne nañ ci diina lañ nekk dañuy def benn rakka waaw ñun ñi nga xam ne nag am nañ ñoo xam ne dañu duñu julli duñu woor ca bu ñu dee texe nag loolee mbokk dañuy gis ne wallahi ku ci am mbokk wala nga am ci xarit laayu ko biir xamal ne dañ koo nax sunu sëriñ su mag si nekkoon fii la ñu leen xamee woon mooy seen jumaa yu mag ya amul kenn ci moom ci ñoom lu dul lañ ko màndargaale muy julli ak taxawal jàkk kenn ci ñoom koo xam ne dañ ne daawul julli daawul taxawal jàkk lu lu amul kon koy ngalawaay nañu leen roy nañuy julli képp koo xamee ne nii bàyyi nga julli xamal ne bàyyi nga lislaam bu ci sax am sikk sàkk benn jigéen soxna soobu baax suñu dëkkal nekkoon na ñu gëmloo ko ne mën ngaa jaamu yàlla ci doo julli wallahi jege na juróom benn fukki at jëm juróom ñaar fukki at yàlla dogal ne amoon na doom boo xam ne ñoo daan ànd doom ba yàlla gindi ko ci sunna mu fexe wax ak yaayam ba yaay ji gindee ko ci sunna mu commencé di julli comme ni jullit ñi di julli mais borom këram daf ne ko ni tant que yaa ngi julli maa ngi yow siqatuñu dara adduna ak alaxira ba nit ñi dee noonu lañ teqali ko soxna si it ne man daal damay julli lu tax yàlla it mayoon na ko tuuti xel ndax dañoo xawoon ne néew doole mu ne ñun ñu ngi nekk seen problème kenn dimbaliwuñu ñu ngi débrouiller suñu bopp léegi nag kon man damay julli di woor ku ma dimbali yaa xam ku ma dimbali moom lu ma yaakaar waxul dëgg waay noonu lay jullee ko woor su ko defee nañu góor-góorlu kuñ mën a waxal suñuy mbokk ñu xam ne ci ñooñu la mbokk ñu laayu ko biir ngal la waay ne jullee ko woor suñu borom nee na wa kasirun min annas ñi ngi doon ñu sujud wa kasirun xaq alayhim al azab xaq alayhi al azab ñu bari ci ñoom mbugalu yàlla yey na ci ñoom lu tax daawuñu sujud gaa yi loolu doo ko jàng ci suratu nuuna suñu borom day dajale jullit ñépp ñi ko daan sujuutal ñépp yahud yaag nasaraan yaag kum mën a doon dajal leen daal dina leen sujud leen ñépp sujud am naa ñu daawul sujud yàlla jël seen gannaaw gi def ko barre de fer ku ci bëgg sujud rek da ngay daanu sa gannaaw wa yud'awna ila sujudi fala fala yastati'un mi ngi noonu dañuy bëgg sujud duñu mën a sujud lu tax loolu suñu borom wax ko mu ne kaanu yud'awna ila sujudi wa hum salimun ba ñuy dund dara dañu leen woon mën na leen dee leen mu sujudal ñu lànk ba ñu sujud loolee mbokk nañ ci bàyyi xel bu baax nañ ci bàyyi xel bu baax woote nit ñi suñu kentalal kàttan ci loolu borom boobu nag subhanahu wa taala ni koo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo la toroxal amul kenn ci jaamu yàlla yi koo xam ne nii dana la mën a tere la ci te yàlla subhanahu wa taala moom mooy def la ko soob ci ay jaamam donte ne ne mbokk julit sujjud googu yëpp buñ koy def nañu xam ne ci yàlla rek lañ ko war a yemale waruñu cee boole yàlla keneen waa ji nga xam ne du sujjud ditu ak ka nga xam ne day sujjuutal yàlla keneen ñooñu ñoo yem wallahi bàyyi ma yi buñ gisee doomu aadama di sujjuutal keneen ku dul yàlla dañuy yéemu ak ay jàng ñu dul ci alxuraana hudhud ma àddoon ak suleymaan ba mu demee fële ca saba nga xam ne mooy yemen googu tey fekk waa saba di jaamu jant bi ñu ngi noonu bu jant bi fenk ñu sujuutal ko loola tax yonent bi alayhi salaam ne yéen jullit jamono bu jant bi fenk bu kenn naafila bàyyi ci xel bu baax bu njee tey jant baa ngi fenk sept heures mooy neuf sept heures mooy neuf kenn amatul droit naafila au minimum ba ba sept heures un mooy quatre cinq minutes donte ne la gënoon nga yóbbu ko ba dix minutes nga doog a commencé naafila lu tax mooy heure boobu la jant bi di génn kenn amul droit naafila ndax yéefir lañ leen sujuutal jant bi hudhud lan la wax mu ne wajadtuha wa qawmaha yasjuduuna li shamsi min duni illah maa ngi leen di fekk ñi ngi sujuutal jant bi ah bàyyi fa yàlla mu ne cheytaane moo leen taaralal loolu ala yasjudu yasjudu lillah alladi yuxriju alqaba fi samawati wal ard mi ngi noonu min alsama wal ard ana lu tee woon ñi nga xam ne ñooy waa saba nga xam ne ñi ngi sujuutal jant bi lu tee woon ñu yem ci sujuutal yàlla mi nga xam ne lépp luy kumpa lépp lu nëbb ci asamaan yi lépp lu nëbb ci suuf yàlla moomu dong moo ko xam yàlla moomu dong moo koy génne ngal la waay kon mi ngi noonu yéen julit dee leen sujuut te bu leen sujuutal ku dul yàlla dee leen sujuut te bu leen sujuutal ku dul yàlla lii de bu ngeen ko defee yàlla dana leen teral adduna ak alaxira yàlla nañu yàlla teral bañ ñoo toroxal yàlla nañu yàlla yëkkati bañ ñoo suufeel yàlla nañu boole ci ñi ko jàmm buñ ko bokkaale ak dara wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad وعليكم السلام ورحمة الله نعم نعم ndax la nga xam ne mooy hud hudhuda dafa dégg benn mbokk mu naan hudhuda àjjana la jëm naaqatu saalih àjjana la jëm ila axiri ala kulli xaal mbokk loolu amul benn tegtal ci alquran wala ci sunna sunu borom subhanahu wa taala gis nañu ni ñami tabbal aljanna moom mooy nit ñi ak jinne yi loolu lañu sunu borom yàlla subhanahu wa taala wax ñooñu mu wax allazina amanu wa amilu salihat ñoom ñoo yeyoo aljanna ma ngi ca jublu nit ña ak jinne yi loolu tax la ñuy wax lépp mooy fa bi ayi alaai rabbikuma tukazibaan wa liman xaafa maqaama rabbihi jannataan fa bi ayi alaai rabbikuma tukazibaan loolee yàlla nga ca jublu nit ña ak jinne yi amma bàyyi ma yu doon dund ci kaw suuf na doon hudhuda la yàlla waxloo namlu ba yàlla waxloo ci suleymaan naaqatu saalix wala ku mën a doon teewul ne mbokk bu doon looloo koy lu tax nga yemale ko ci ñoom tee nga ne kon bàyyi mu yëpp àddina lañ jëm xanaa xamu ne suñu borom mu ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi suñu borom mu ne wa dawaab yasjuduna lahu ala kulli xaal lay wér mooy ñoom ñëpp dañuy daal di nekk poussière ñoom yàlla du leen atte aljanna yàlla du leen atte sawara ña nga xam ne ñooy dem aljanna mooy julit ñu baax ñi ak ña nga xam ne nii moom mooy jinne yu baax yi doonte ne daañ fa fekk lu leen soob afidu alayna min alma aw mimma razaqakum allah sunu borom ne dañ leen di tontu inna allaha xaramahuma alal alal kafirin kon yéeféer bokkoon na ci médecins sans frontières bokkoon na ñuy faj gaana yi ci juróom-ñaareelu fan ca léegi médecin bi nee na xale bi kenn waru ko laar avant weer lañ cay jëkk a wax mooy wat ci juróom-ñaari fan bi tudd ci juróom-ñaareelu fan bi loolu muy ngëneel bi loolu mooy ngëneel bi mën na koo jiitu mën na koo yées ngëneel bi nag mooy juróom-ñaari fan gannaaw ba fukki fan ak ñeent gannaaw ba soo ko amul heure bu jo jàppande mooy ñett yooyu nga xam ne ñoo ànd mooy wat tudd ak rey même bu doon tene sax ci juróom-ñaari fan bi rek la yem lépp loo xam ne dañ koo digle ci lislaam wala ñu tere ko ci lislaam bu lor ñëwee rek lor gi day dàq loolu moo tax sunu borom mu ne witre xululaw ahad moo ci cosaan waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ca dolli qul anzur bil falaq qul anzur bin nas léeg-léeg ci ay naafilam su ko defee booy witre nga jàng qul huwa allahu ahad teg ci falaq ak nas lu baax la bu dee da ngay witre yem ci qul huwa allahu ahad kese it da ngay gis ne loolee lu baax la amul benn juuyoo bu nekk ci loolu wallahu subhanahu wa taala alam ala kulli xaal ala kulli xaal kon mbokk mënees na doyloo loolu ñu ngi waaw benn jigéen dafa def écho médecin bi ne ko sa doom bi buy judd handicapé lay doon loolee ana lan lañ ciy digle ala kulli xaal ku mel ne Cheikh Ousaymin am na benn waxtaan bu mu doon def ak ay médecin bokk na ci question boobu mu ne benn jigéen boo xam ne gars yi dañ ko waxoon loolu def ko école ne ko sa doom ji bu juddoo day nekk handicapé kaza wa kaza mu ne moom bëgg na lu ko yàlla may bëgg na yàlla muy dogal doom ba ba mu juddoo nekk doom boo xam ne bu rafet la dara sikkul ci moom te loolu machine yi dañuy juum te it yàlla mooy def lu ko soob jabar ju am doom bi jabar ju juddoo doom ji lafañ boole ci gumba gars yi li du musiba waay lafañ na gumba na yàlla ubbi xel mi ci alxu ala kulli xaal yàlla mooy def lu ko soob ñu ngi noonu gis naa benn docteur boo xam ne nii daana wax ci affaire yi sunu borom ni muy nattoo jàmm benn famille boo xam ne benn doom bu handicapé lañu am doom bi moo yor famille bi doom bu handicapé boobu la muy yor wante la famille bi dund gis ngeen yàlla mooy def lu ko soob su ko defee kon doom bi bu la ko yàlla may su dee ne avant yàlla di ci def ak ruux su boobaa day am na borom xam-xam yu ne dagan nañu avorté ko su dee ne gis nañu ne danger am na ci jëm ci wayjur yi wala danger am na ci gis ne kii kat dafa yor melokaan boo xam ne melokaanu doomu aadama amma bu dee ne loole dafa nekk gannaaw bi ci yàlla wala ruux ngal la waaye sukkandiku leen ci yàlla muñu leen ca xamu leen lu tax yàlla def ko mën na ko def mu doon yiwu àdduna ak yiwu yiwu àllaaxira bi ci mujjoon mu ne doom don organe ndax jullit bi am na droit maye la nga xam ne mooy organe ala kulli xaal mbokk jullit lañu ci wax mooy lu mel ni Aboubacar Jabir Jazairi laajoon nañ ko lu demee noonu mu ne daal lii mbir la bu xew bu doon yonent bi alayhi salaam mi ngi fi daan ko leeral mais xewul woon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag waa ji nga xam ne dafay dund mu jël organe am mu may ko keneen koo koy sauvé ca moom loolee du tax moom mu faatu am na yenn borom xam-xam yu ko qiyaas ci maye deret yaa ngi maye sa deret kenn mën caa dund ca doo faatu am na ñu ko qiyaas ci loolu ñoom loolu dañ ñi bu dee wàllu googee dana dagan am ma bu dee ne yow lii boo ko mayee da ngay gis na mën na la faat yow su boobaa loolee du dagan te yàlla di ko teg natt bi kooku muy muñ nattoom soo dee na ñu jël say organe loolee moom du dagan mbokk julit yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa def orma ci doomu aadama nit ki bu xisee ba dee dañ ko war a warmaal nee na boo demee yaxam mi ngi mel ne dammi nga ko bi muy dund su ko defee daal la nga xam ne mooy ay don d'organe da mu xam ne Occident nga xam ne benn waaye day dem testé daal di signé bu dee dem nañ ba dee te léeg-léeg duñu xaar sax mu dee dañuy yegg ci phase bi muy tuddee cliniquement mort ñu ngi noonu ca loolu ñi nga xam ne ñooy nekk professeur neurologie ñoo ko mën a xam nga xam ne dañ naan ruux gi génnagul mais daal mi ngi dee ca la ñuy commencé def prélèvement xol baat rein yaag kaza wa kaza wa kaza loolee mbokk jullit du dugg ci loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk